tina euh, mbirum Hadjibou Soumaré at fi mu mujj noo ko jàngatee. maa ngi lay <clears throat> ci plateau moo xam sa invité yi la ku ci nekk ci ñoom maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. di nuyu équipe bu chroniqueur yi. Mhm. di nuyu itam équipe technique bi. di beral nuyoo sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. moo xam ñi nekk ci réew mi la ak ñi nekk ci diaspora bi. waaw euh, mbirum Hadjibou Soumaré bi dama dama ci xaw a jaaxle. ndax boo xoolee ñi intervenir ñëpp ku ci nekk nangu nga ne cadre administration la c'est un mhm. homme d'état xam ni état di fonctionner xam lan la ko ay droit may ci kàddu yu mu war a yëkkati jëme ko ci chef de l'état xam lan la ko ay droit mhm. bi mu am en face xam ne du baale dara waaw kon bu ma dajalee lii lépp est-ce que man sama xel dana mën a nangu ni monsieur bu Soumaré dafa maye tànk maanaam il a imprudent. Hmm. est-ce que sama xel dana ko mën nangu. ci koo xam ne bu ngeen limee parcours am fi mu jaar nii lépp wax formation bi mu jaar xam régime bi mu amal en face xam ne duñ ko may dara est-ce que sama xel dana nangu ni dafa tar maanaam il a été imprudent ci lim laaj. non non man dama jàpp ni. nit ku xam lim doon def la. Mhm. laa posé benn question doon xaar tontu xëy na tontu bi mu doon xaar lañ ko joxul lan moo gënoon yomb président génn démentir ko leeral simplement ka am na ak amul Bougane Gueye Dany li mu accusé régime bi moo gën a garaaw te tontuwuñ ci. 98 milliards 98 milliards yoo xam ne nee nañ am na benn ministre bu ko ñemee jël déposé ko ci banque sans autorisation état dégg nga ci tontu donc kon du vouloir tontu lu leerul lan la. est-ce que du bëgg fay wax ji damay laaj. est-ce du bëgg a artu keneen ku ci bëggoon information damay artu damay laaj. parce que su fekkee ne dafa laajte. ñu convoqué ko mu ñëw def ñu po ñu placé ko sous régime garde à vue yeewu ñu def ko <coughs> contrôle judiciaire ba ko mu ñëw. lan moo tax ñu def ko contrôle judiciaire ndax presse étrangère bi ci wax tax. attention foog ñu laajte cee rek que dañoo naruñu lekk seen la presse loolu moo tax ñu reculer. léegi boo génnee ci foofu yëpp léegi nag ñu war a laajte lan la fi Marine Le Pen ñëwoon def si loolu sénégalais bu nekk ci ñun war nga ko laajte ndax ku jël ci ñun da wax ne Marine Le Pen bëgguñu ñun nit ñu ñuul ñi mhm. ba pare ñëw suñu réew ñun nit ñu ñuul suñu président recevoir ko lu mu fi doon def ñu wax ki ko introduire yéen a tudd léegi parcours waa ji lu mu fi doon def Sénégal rek la chefu opposition dëkk bu mag bu mel ni France ak relation yi mu am ak nit ñi ñuul yi ñëw ci réew mi ñu def silence rajo mu mel ni benn simple touriste tubaab moo fi jaar dugg Saly génnaat dem yoonam duñu duñu éclairer lu fi indi woon Marine Le Pen du communiquer du wax lu dara quoi ça passe maanaam Le Pen benn tubaab la woon rek bu fi jaar dem duñu jéem a leeral benn yoon xam nga bu fekkoon ne ñoom génnoon nañ leeral na lii mu fi indi Marine Le Pen amaana débat bi doom mais état bi dafa am défaillance ci communication état bi fu mu war a communiquer du fa communiquer lim sawar mooy communication boo xam ne day jéem a noyyi wala day jéem a dugal benn opposant bu doon benn opposant moo am benn problème de mœurs wala dara ñu wër plateau yi ñoom ñëpp génn wax mais pour leeral ñu ñun askan bi lan moo fi indoon Marine Le Pen non non duñ ñu ko leer il faut nit juge à l'étranger wala juge ca ajak-jak ñëw wax ñu lan moo ko fi indiwoon Hadjibou Soumaré posé question bi pour ñu doon ñu leeral nii oui la président recevoir na ko mais dara mais jokkalante ba xewul seen diggante. lu lu Sonko doon wax ak Mballo président Guinée-Bissau ba tey xamaguñ ko de. <laughs> Sonko n'est pas président de la République. waaw mais personnalité publique la. je parle du président ah, non, de du lépp la ñuy xam àdduna tamit. je parle de la première institution de ce pays. baal ba Sonko nekk président ñu laaj ko ko. wala bu fekkee nag carnet d'adresse Sonko da lay intéressé nga dem laaj ko fa man géré wu ma carnet d'adresse Sonko agenda am loolu da ngay woo Jibi Gueye Ndiaye wala genre yooyu xawuma sax luy agenda Sonko laaj ko ñu koy géré loolu donc bu fekkee ni le président day recevoir ku mel ni Marine Le Pen antécédent yi mu am ak ñun parti position yi mu am li muy décrit ci relation France ak ñun yëpp nga dajale ko mais def ouf mais day mais sénégalais yi keneen ku ñëw jox leen benn xibaar mais loolu day travailler seen bopp surtout que xibaar gi ñu wax. question yi mu posé dafa am ay antécédents ñëpp xam na ni les président africains finance les candidats au présidentiel en France c'est pas loolu du lu bees l'affaire Kadhafi Sarkozy mi ngi fi l'affaire Omar Bongo ak ñeneen a ngi fi l'affaire des mallettes de du président Wade ak représentant FMI mi ngi fi Robert Bourgi génn wax dafa am ay antécédents ci loolu noonu ñu du baaraam du lu bees ci langue gi daf fee yàgg am. am na fu ñu jëm fi ñu jëm képp ku waxal yàlla xam ni état bi soxla na am ñenn ñi ci wetam lan moo ko tax parce que tey France leur régime bi fa nekk amul majorité tey Macron amul benn pays africain bu mën a maanaam bu mën a bu mu bëgg defal lu neex ba lenn lu la bëggoon sanctionné ci assemblée bi moom mu bloqué ko Marine Le Pen mooy deuxième force parlementaire en France attention c'est pas n'importe qui. contexte bi dafa nu mu tëggoo ngir hmm. assemblée française d'accord donc nit ki dafa poser question mais génne leen démentir rek. ñu hmm. jàll ci leneen. mais lan moo ci jaroon garde à vue un homme bu am 72 ans nga faraan loo ko commissariat yeewu presse internationale. mais mais mais ñoom nag nga braqué fi projecteurs yi. mais Cheikh Ousmane ñoom nag laaj bi dañ koo déggee dañ koo déggee tuuma. waaw xam nga laaj moom kum neex nga firee ko nu mu la neexee waaye dafa tuuma. mais est-ce que est-ce que loolu nekkul <coughs> nekkul insinuation. est-ce que nga wax. en tant que est-ce que rek la ñuy wax. en tant que autorité. waaw moom tam dafa laaj ci kaw laaj. ah est-ce que rek. <laughs> waaw laaj ci kaw laaj kenn ci ñun amul affirmation ne monsieur Hadjibou Soumaré dafa affirmer li mu wax dafa poser question ku nekk ci ñun boo ci wax dangay ngay laajte est-ce que. parce qu'il n'est pas n'importe qui aussi. waaw mais moo tax mu jël prudence laajte il n'a pas affirmé dafa laajte. est-ce nekkul dafa daw res. non <laughs> xoolal ba tey est-ce rek ngay ñëw. <laughs> donc ça pose est-ce que est-ce que est-ce que pose suba. ay est-ce que ci kaw est-ce que. waaw ay est-ce que ci kaw est-ce que est-ce que jaroon na lii ko. léegi bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma yóbbante Adama Fall sama est-ce que <laughs> Adama Fall.